ñu am mbégte yi di fekkee wa dialog bi waye di la sant nag président bu baax di la gërëm it di la ñaanal di la wax na yaang ci yoon wi ku jitu ku ne daal day amé jamono du téen waye da ngay déssok ña nga raw ta bokku ñu mom pas-pas nga xaar leen ñi bugg te ñëw nga fexe no leen jëllu fee ndax dañ ci yeneen tibee gënal ñëpp waaye yàlla da ko doon déey te bu ko déeyee nag ba pare ba mbax ko ne nii la comme yàlla xam ne nit daf naan ko delloo la nga waxtaan wa shaawirhum fil amr fa iza azamta fa tawakkal ala Allah gannaaw yow yàlla doo la waaye yaa ngi royaat yonent ay nam doon defee daal ku a nit ñi day amee jamono nga déglu leen nga waxtaan defoo ko benn yoon defoo ko ñaari yoon defal nga ko nekk na dellu si jukka bi moo tax kilifa yi ma gis lu ñëw fi rasamement lool seen ñu ñëw ci ku xam ngay bokkee ko ci sëriñ mbaa ci famille mbaa ci seeti ko nga wan ko ne ko du nii nii nii la nii laa ko kon ñu ngi lay sant bu baax si ñu defal rawatina ñun ñi nga xam ne xam naa waaye dañuy wisil ndax muy ñëw ndax bi ma joxee sama leetar bu doon jeex président force paysan bu ñàkk koo xam ne kii moom ma nga toog naan waaw béykat yi luy seen yoon ci dialogue bi sàmmkat yi luy ci dialogue bi nappkat yi ci dialogue bi te ñooñu kat tey questionnement bii toll ci réew mi bokk ak ñoom ban na may dem Dakar ñu ne yéen a dem foofu bi soo ne tey su ngeen soor ñu ne bul boo ne maa ngay dem Thiès ñu ne tunnel ko mu ndam ñun bi moom dafa yem ci Thiès Ziguinchor ak Dakar réew mi dañoo koom-koomam ci bitti lu nekk. kon maanaam bi daal bu fekkee ñun dañ koo naa rek ci élection yi naa ci am cër seetatoo société bi xeet lañ ko teg comme firnde économie réew mi taxaw na kon bu boobaa démocratie sociale amatul démocratie économique amatul. ndox ko nag yow ba loolu lu koy yëngu ci sa xel parce que bu ngeen di équité territoriale ñun ñu dëkk ci àll bi te ànd ak àll bi ngeen la suñu xel daal. ñaari ñaari sénégalais su ne woon ci benn Sénégal sénégalais ba dëkk ba ñuy wax réew taax dara du ko mën lycée yaa ngi hôpital yaa ngi université yaa ngi BRT ñu ngi fi danañ ko fi indi teer baa ngi fi ku feebar faju ku am bëgg liggéey xëy soo fe soo jàng di jàng mu am Sénégal boo xam ne nag mu nga fee. ay teen la ñuy jukki ba léegi di ko def ñu ngi ne ñii di ñaari bëri buy gerte yu ji ren ñu ngi ne ngii ali buy jox leen tey euh, euh, tanaf euh, ndox bu jëm ji gisuñu lycée gisuñu BRT gisuñu ku ñuy fajoo loolu nag yow dindi ko bi nga ñëwee lycée commencé na dugal ci àll bi. château muy indi nit ñi ci àll bi réeru tuñ boo xool seen tudd ndox maa ngi nekk ji poste de santé yi dem na fi ndax yow bu ngeen yóbbu boo ne sage femme yóbbu leen ma ko xam ne commune rural ñu ne sage femme du dem ci commune rural moo gën a wax sage femme du dem ci commune rural nga ne préscolaire ñu ne déedéet préscolaire ñu dem ci école ci àll bi case de tuuti bi président Abdoulaye Wade dañuy nit moo ko ci yéen waaye ginnaaw loolu boole ci yéen yi ba tax ñun suñuy xel dal am na ñu ngi wiitu dugal nga fa courant ndox mi ñëw na yaakaar nañ ne dañ ko fekkee cent milliards rek dinañ am ñun ñu am ñoom bay président ci jamono jàll ci jamono bu ñu jàll. ku ñuy def politique nañ dama dama rek léegi ba am ñetti nit ko yoo xam ne réer nañu dañ ko seen dañ ko bëri ñoo ko tool bi gërëm ci xam bu taay bi su may def bu tax a réewoon na tamit. Sénégal bii ñu tuddee Sénégal tey bi laa ngi li musulmaan yi daj dañ ko wax li musulmaan yi daj dañ ko wax nuy naan nga xam seen di jàng ci lampe pétrole tey boo dikkee forage bi tiim la nga dem xoj ko rek léegi ba tàkk gërëm papa ndax ma taal film bi mu ne doom taalal ñëpp a yem léegi muy fexe ba Sénégal boobu ci doon Sénégal ñu def ko ba tey ñun ñu egg si léegi ëpp taal bi rek moom mooy ay fan bi néew ñu ne pétrole yooyu ñu génne ci lampe pétrole yeeg yooyu yëpp ñu mel ni bëreeg France mënatuñoo déggoo ci biir boobu kon xam nga loolu manqué ñu ngi bëgg goreel ñu ngi bëgg ñàkk jot sëñ Mountakha laa dégg ba ci jëm mu ne ñett mooy dëgg réew te buñ ko dëgg réew bi di dox ne laan mu ne gore mu ne pas-pas ak yàllaa ko moom waaye xam ñaaw rek koo dégg ñu ne ak gore dafa bañ a ñaaw ci waxam di wax lu rafet di wax lu baax bu yàqal kenn ko dégg ñu ne aka gore dafa bañ a ñaw ci jikko bu jëfee ku ko dégg da yaaram la iski waaye xool leen wax li def léegi xool leen jëf yi ñuy def léegi ngor jeex na lan mooy jom ku bañ ku la yàq baat boobu dafa métti jom mooy ku bañ ku la xeeb Sénégal kenn xeebu ñuul mun dem ñu ngaw réewu teraanga tey kenn mënu ko teral kenn ñëpp a ñaaw ndax koo séen tey rek mu nga xam waxee la xam ne diw ku ko woon ñaari bu jàllee rek pas-pas yi fi sunu maam yi defoon te jox ñu ko bi xeex ba bi général Pétain mu wóor ko ne ko dafanteeg moom fii ci Jolof ba yàlla ñëpp Alboury tey gannaay def Cheikh Omarul Fuuti yu taxaw fii mu wóor ko wóor yàlla ne bu fekkoon ne woon der na dama ne benn doomu soxna muy fanaan ci àddina amul muy defantoog ñoom di ko defantoog ñoom ba ma leen ne baatin am na dem nañ ba ne Cheikh Oumar yi kenn gisu ko mu disparaître dans les palais de Bandiagara Cheikh Mat Bamba def boobu te ñu si wàcc yee suñu kenn ñun ñu bëgg dikk na leen waaye lay sàmm jàpp réew mi di ci coow jàpp réew mi def ko ni mu ngi waan guddee bëccëg rek ku nekk naan le nord le sud l'est l'ouest fu jëm tant que ormalante wuñ ki ñëpp ñu xam ne yàllaa ko jiital te yàlla da jóor yow la yàlla jiital nañ la doon su la doyloo nga teg ci yoon bi lu mel ni am ku ne joxe ci sa xalaat nga xam ne nag jalo bu ñëw fii di werante bu ñëw di werante ñaari baax la bëgg werante werante benn baaxu ci kon nag président de la république lii nga ubbi daal na ci bokk ñi politique bokk ñu bëyi xel askan wi nga xam ne ñoo may fal te dina fay fexe ba at dellu si man day damay dégg ci fan yi damay toog ba yàgg rek ma ne moom ma fi yàlla doon baxee ba lii may dégg ma di ko dégg wala lii may gis ma di ko gis daloon na kilifa bu di wax bu na gaay ko jëlee ji woon kub indi ko jolof ne ko jiite mu alxuraan dema jiite sinis bu na demee ba dugg ci diina ji alaaj daw da indil ko ko ñu ne ngoon changement de campagne day am mu defar ay gerte ki fas la ñuy mu ñëw rek benn madame ne sëñ bi ak weeni neen mu jël loxo yi rek wax ci bët yi ma yàlla lu ma doon fekkee lii ba di ko seetaan waaye billaahi ku gis li Sénégal di génn léegi su laa doon rek desee da nga jooy da nga dem ba sëkk say nopp dañ may dégg man bu ma toogee waa jékki-jékki ne Macky Sall maa ngi kun ne président de la République fi ne bu ko neexoon léegi képp